ko te Ada Fass sax Bismi te mbot ma mbot ma attention Ada Fass Bismi Ada Fass Bismi dara amagul Ada Fass Bismi Ada Fass a ngi door Ada Fass a ngi door Ada na Bébé Bismi door na Iberkin da koo bëgg a caxabal Ada Fass a Bismi da koo bëgg a Bismi da koo bëgg a jàpp catu ngemb la Bébé Bismi Arafat ci defet la jóge ci diggante ak Onde le Fou daa bëgg a dugg Bébé Bismi mayu ko lool Bébé Bismi ngi door ubercute gene delloo si waat bëri bi déggal <laughs> mën a ëffal Bébé Bismi Arafat dara amagul dara amagul dóor xeex ba dóor ya xeex ba Ada Fass dóor ya dóor ya xeex ba dóor ya xeex ba Ada Fass Ada Fass confirmé na Ada